état d'urgence bi ak bu mu amee ba léegi couvre-feu ba mu amee ba léegi boo xoolee yeneen affaire mi ngi commencé génnaat yeneen affaire yoo xamante kenn kenn kenn kenn kenn programme ko mu ngi commencé génnaat xam nga lu demee comme faux usage de faux bi nga xamante ne moom lañ gis ay gars yi jékki-jékki di solo ay policiers ñëw ne policier lañ dugg si dëkk bi sonal nit yi xam nga ay faux médecins ñu ngi leen ciy dégg xam nga ay vaccin ah, yoo xamante ne ñu ngi koy préparé dugal suñu réew instant bi xam nga loolu noonu maanaam loolu loolu moom la si terrain bi actuellement nii comprendre ñun loolu la ñuy dox di ko mbëkkanteel loolu moo gën a cóolagum instant bi suñu. foofu laa la bëggoon këfee nii c'est bu ñu jaaree sànq noonu ci waxtaan ma boo ko gisee xëccoo bu ñu am léegi si cette loi la dangay gis nii ni en substance dafa bari suñu mécanisme yi maanaam yi ñuy topp lu bari baaxu si. tu comprends ci maanaam li ñuy xëccoo kii indi régime ñuy wax ci biir da ngay gis ne nii nii kii jox nañ ko ku euh, pouvoir yëpp te amul contrôle te yow dañ la wax ne nii. sans puissance la contrôle n'existe pas quoi n'est-ce pas ba pare ñu ne la pour que tu sens que ca yow mi yow tu es vraiment puissant quoi faut que tu puisses avoir quelqu'un bi nga xamante ne koy calculer wala mu lay contrôler quoi foog ngay am la maîtrise quoi puissance sans maîtrise c'est zéro mais ñu jël puissance bi yëpp jox ko benn nit quoi après ñëpp toog nii di seetaan quoi pour lan par nit koo ko def nii def nii moo waral xolal faux usage de faux day bëri bàyyi ma ñëw faux usage de faux bëri pourquoi parce que ñu ñëpp ñu dépendons de benn personne pour pour aller loin lan la ñuy wax il faut ménager sa monture quoi oto bi la war a yóbbu da nga war a xool yàq sa quatre pneus baax na say organe ndax baax na sa moteur baax na doo xool moteur kese bàyyi pneu yi doo mës a dem fenn mais état c'est beaucoup de choses à la fois c'est un tout qui fait quelque chose et un tout il y a beaucoup de choses dedans mais su fekkente ne benn nit rek moom la ñuy Sénégal lu lépp lu ñu wax ne ñu ne la vision de telle personne selon la vision de telle personne waa dëgg la de personne de cette personne là d' accord mais que cette vision de cette personne la vision de tout le monde quoi. et l' intérêt de de tout le monde. comme li ngay wax instant yii comme li ngay wax comme ñu jël lépp jox ko ki nga xamante ne moom mooy le président de la république loolu moom. le président ba nga ko élire le président de la république foofu nga ko nga ko joxee nga ko joxe li nga xamante ne lépp moom mooy arme mais gis nga usage de faux yi nga xamante ne moom mooy am période yi ñu toll nii ça n'a rien à voir avec l'aspect présidentiel du benn parce que lan la on a un médecin boo xamante ne ici de lo c'est c'est un supposé médecin ah, c'est un gynécologue en même temps il est lan lan la nekkaat sax nekk na fi ay cancérologue ak affaire yooyu noonu mais loolu noonu ko loolu et membre de l'APR et membre de l'APR waaw mais loolu pour être de nga xamante ne moom am na ko kooku lan la man démb loolu laa doon wax leen sa gars la gis nga ay la affaire yi nga délit yi nga xamante ne da ko da ko dajale def ko gis nga kooku façon atte bi dañ ko waroon def benn atte atte bu spécial bu jaree sax ñu tere ñu ñu ñu créer ko un tribunal juge ko juge ko jugement boo xamante ne parce que moom moo feeñ mooy defal ndànk rek ñu bu dee sax ñu jël affaire yi ko xoolal jël juge juge ko benn jugement parce que li mu def dafa garaaw parce que période fi mu toll nii ah ñu toll si état d'urgence parce que lan moo tax président décrété état d'urgence parce que instant yi nii yaa dafa am benn feebar boo xam te ne daf fi dugg di di def ay ravage yow tu te profites de ça comprendre nga ne yow benn médecin nga yow tu di def ay prélèvement di di di di jàpp nit yi di leen testé naan ñoom ñëpp euh, mu doon def yàgg na tax ñu jàpp ko parce que da doon def ay prélèvement ne moom médecin la waa ministère de la santé ñoom ñoo ko yónni pour muy def ay test comprendre nga. ce qui est bizarre mooy mais moom dafa mel ni dafa am ay carte professionnelle par rapport ak li muy wax. loolu léegi te carte professionnelle yooyu noonu. du ay carte yu bon de. non non non. ok waa ji ko defar jàpp nañu ko. waaw ga benn cyber la ko defee benn cyber la ko defee. politicien yi fii nii. waaye bay lay wax nii cyber la ko defee. cyber criminalité am na de. loolu sax man waaye jàppale ko man dafa laay waxee man xool loolu laa doon wax gars yi di ma reetaan gis nga loolu daf fi yàgg gis nga faux usage de faux yi daf fi yàgg te xoolal instant bi ragal corona bi moo tax xam nga ñuy jàpp ñenn ñi wala ñuy sonnal ñeen ñi Sénégal da ngay gis benn gayaan bu toog si tele bi xam nga feebar boo ko wax mu wax la garab ne la lii ngay jël lii boole kook lii kërëb kërëb xam nga waaw yooyu yooyu daf fi bëri te gis nga santé kenn waru ko foowee dafa garaaw problème de santé dafa garaaw comprendre mu la ko fii xoolal fii loolu laa lay wax xam nga problème mu santé dafa sérieux xam nga dafa garaaw comprendre tey Sénégal da ngay gis koo xamante ne mooy mooy loolu ah? xam nga tamit baaxul quoi. waaw xoolal man man foofu xam man man foofu daa am lu mu fay wax xam la xam nga xam nga Sénégal mooy lu gars yi usage de faux daf fi yàgg bëri loolu moom yàgg dafay bëri quoi xam la peut-être bii dafa gën a garaaw quoi muy santé affaire yu xam la mais xam nga yaa ngi naan kii fii la bokk fii la bokk mais jàpp nañu fi ay homme de tenue xam nga xam nga ñi koy laaj mën na la ay jaaykat laa xam nga foo jëlee dama kaa jënd xam nga c'est que dama bëgg xamal ni loolu yàgg na Sénégal mais instant dafa gën a la te gis nga ak corona bi mooy lu may waxaat rek fii dëkk bu nekk fii ngay jaaree baax wala bon xam la parce que xam la da ku nekk xam nga li nga am lu fi nekk ak li nga mën xam la parce que nga nga jamono ji kenn dimbaliwul kenn ku nekk sa bopp ngay dimbali ku maam la ku nekk da ngay xool sax intérêt nga dem fa xam la corona man yàlla jeex ak jàmm quoi mais nga bu jeexee ku nekk war nga Sénégal war nañu mën xool surtout surtout ñuy liggéey si gouvernement surtout ñuy liggéey si gouvernement loolu man dafa war a nekk dafa war a nekk ay affaire yu leer naññ naññ naññ lay dóor si yéen naa la ko mm-hmm. Mm-hmm. bu ñu yàlla dimbaloon gis nga ni ñu tiitee ak ni ñu ci sonnee problème yi ñu ci am yëpp comprendre nga liggéey yëpp yàqu xoolal kenn nelawatul ba yàndoo gis nga bu ci yàlla dundee bu ñu ci yàlla dundee léegi léegi barki yàlla léegi gis waa ji maye concert fee ne place de l'Obélisque ah concert daan nañ corona non mais non mais loolu. maanaam maanaam maanaam ñun dama la na. ñu nekk boo xamante ne. maanaam xoolal ñu nekk peuple boo xamante ne. xam nga ra ay benn benn ñooy jàng si xam nga. ay affaire ay ay problème yu ñu gaaw fàtte problème mel ni musu am Sénégal de mais moom mais moom la ci monde bi quoi mais Batalo Joola li mu def coronavirus defu ko waaw mais dëgg la mais defal ak moom te xool lii indi woon Batalo Joola tey la puuf waaw mais dëgg la mais mais benn affaire am comprendre li loolu dëgg la ñun dañu nekk peuple boo xamante ne ñu siy jàng si li nga xamante ne dafa jot a wees xool xool stade bi stade bi nu mu nu mu fi nu mu fi màbbee woon ba léegi defaruñu ko xam nga ba léegi mu ngi foofu kenn waxatul lu si jëm. waaw mais xam nga mais mais ñàkk xaalis la son. non du ñàkk xaalis de. ñàkk xaalis waxu ñàkk xaalis xaalis moom kenn du ko wax. ñu Sénégal dañu am xaalis. mais mais mais mais mais am problème depuis depuis depuis kii am na benn waay bu ñu fi jàppoon Amadou Amadou Wuri Diallo Amadou Wuri Diallo par kii kooku kooku ah ñu ñu tëj ko mu def mu defaat mu defaat procès appel Thiès gars yi gars yi gën ko daanaat ñu toog ba ci yàgg ñu ne gracier nañ ko ñu toog ba ci yàgg moom mu ne moom mu ne moom il reconnaît sax monsieur Sall reconnaît sax moom on lui a induit en maanaam dañ koo juumloo mais wax dëgg fa yàlla wax suñ ko xooloon affaire bi ñu ne déet waaye te loolu ci ci affaire affaire la ñu ne déeta waaye sans waaye ñëw fii affaire u médecine naan naan kii la man bu ma ko seetaanee ci émission bi sama ma dama waaru quoi yenn am na yenn moo yoo xamante ne nit su nit médecin sax du du waxee noonu moom mu jël ay moo di ko wax di di di ko ah. taw yi gaa yi di ko gars yi xalamal ci tele bi ah. ah mu mel ni à la yow da ngay yow da nga naan man fan laa nekk booy boobu booy boobu c'est c'est un jeune comme nous te puis xam na xam na aduna aduna yàggut yow yow jeune nga comme ñun nga da ngay xare nga fayit sa moo gën ngay dugg ci yenn yi ah système bi di la dugal gars yi di gars yi di la couver ngay nekk ci ay ay membre APR ay keneen ak keneen APR nag wax dëgg fa yàlla dama koy ñaanal ak moom président yi bés bu xasee ba génn ci lii na xoolaat APR bu baax quoi ndaxte lii mu ngi bëgg a bari ci partem keneen ak keneen la ngi nii am nu tari Bougazelli mu ngi nii ñu jàpp ci affaire yooyu kii ñu kii tamit ñu yaa jàpp ko ci foo faux médecin ñu toogaat ba ci yàgg ñu ne non non APR la bokk xam nga tamit affaire bi su baree à la fin ñun ni si boppam ñun dañ weddi quoi dañu góorgóorlu rek ne nañu góorgóorlu rek jéem a ba mm. xam nga lu mu la c'est deux choses différentes non defal naa parce que gis nga rek la ah. président la république dama ne le président de la république il n'est pas censé à ce que moom ñëpp ñi nga xamante ne dañuy militer ci parti président de la république mun na xam mus mus mun na xam musul xam sax kan mooy Bougazeli am na yenn parti yoo xamante ne boo demee yenn maire yoo xamante ne yoo xamante ne wala ay adjoint maire yoo xamante ne ni ils font partie de l'APR yoo xamante président de la république xamu kon nit ki boo ko xamul mënoo xam jikkoom yooyu moom c'est pas grave mais comme li nga wax comme peut mooy leçon morale boobu noonu nga joxe moom mooy gis nga instant yi période yu ñu toll nii gis nga jeunesse bi war na mën a tal leneen lu dul li nga xamante mooy corruption couvre-feu bi li mu andi si ay genre genre genre usage de faux yooyu noonu dafa bëri parce que ñun dañoo constaté ñun barkaati dem rek sama koñ fii nii am na ay sàcc yu fa dugal raxas téléphone yi nekk foofu yëpp mais couvre-feu bi nga xamante ne moom moo censé protéger ñu ne policiers yi instant yi police dafa génn ñëppan ci mbedd bi comprendre nga ñëpp police sécurité bi gën na yokk sécurité boo xamante ne ni yow saa yoo xëyee ñu ne la sàcc nañ fii saa yoo xëyee ñu ne la daj nañ magasin fii saa yoo xëyee ñu ne la def nañ la def loolu moom moo doon loo xamante ne c'est un revoir xam nga tey tey population ci boppam voilà wane nañ ne ñoom ils sont matures ndaxte couvre-feu am na ñoom ñëpp ku ci nekk mu ngi dugg sa biir kër toog jàpp sa ñàmbur mais tey jii nii suñ sentiree ne sécurité bi dafa des dañ koy wax ndaxte vol vol yi bari yi gars yi di kii ak koosal googu xam nga loolu tamit war nañ ko xolaat ñoom seen bopp war nañ remettre en question ne nit danga danga da sa dara def ko ci benn magasin yi gars yi wëlba ci gi couvre fa am ñu waroon la protéger protéger say magasin ba pare yow ñu jël la euh, euh, garantie la loolu suba gannaaw suba yow nga yow yow tu te rends yow sa magasin dañ koo kii nii mais mais am na benn policier bu wax am na benn commissaire bu wax am na benn commissaire bu rek déglu ma wax am na benn commissaire bu wax ne am na benn commissaire bu wax ne ne yow fekkee ne sa mang non non non mais non d' accord ma d' accord ma Sénégal nekk dañu ne émission bi ci laa bokk ci la bokk c' parce que du Sénégalais ci du Sénégalais ñëpp boo jëlee Sénégal non defe naa tu as plus de 54 pour cent yi nga xamante ni jànguñu te bu fekkente ni yaa ngi suivre maanaam sa régime maanaam sa gouvernement nu muy doxee par rapport assemblée lenn rek la ñuy dañuy tegante xel maa la gën a jàng maa la gën a maîtriser constitution maa la gën a maîtriser maa la gën a mën a maîtriser droit duutante fii nga dégg nga fi lu nekk tailleur de la constitution lu ne loolu lépp lenn la affaire la la jaayante intellect la jaayante ni da ngeen dem def des des hautes études universitaires boo jëlee moitié ci Sénégal cinquante plus de cinquante pour cent jànguñu donc xamuñu dara si la bokk ki xamul dara tamit da nga koy nangul ne xamul dara mu wax lu mu lu mu fu mu toll mais cela ne veut pas dire que lu mu am solo non non non non non non non bàyyi ma ñëw non man d'accord ma si loolu d'accord ma il faut accepter la différence des autres pour pouvoir que ni yow nga xam ni ki nga doon. waaw léegi man man léegi man léegi man léegi man léegi foofu Issa Defoe laa waxee fay. fay non non xoolal c'est que xam nga lan laa wax. xam ah, nga am na fi xam ne bu ñu fa duggee rek après lu ñu bëgg wax population bi duñu leen ko wax xam nga lu ñu bëgg wax nit ñi wax mhm. parce que xam nga instant yi nii mooy lu baa bi wax sànq xam nga dafa am point yoo xam a am solo instant yi xam nga mooy gars yi loo xam te ko yaa ngi dégg parce que même tout récemment rek xam nga yaa ngi dégg rappeurs yi ñu naan am na ñuy xam dañoo dem jëli xaalis mhm. xam la xam la te ñoom waruñoo jëli xaalis léegi léegi léegi xam la te foofu déjà bu ñu même foofu sax xam la beneen cas la mhm. te si la bokk xam la parce que tey bu ñuy wax ay Audi dañoo waroon Wally Seck joxe na 10 million ñu ne ñu ne Pape Diouf joxe na 11 millions Audi si yoon moo ëpp xaalis ñoom waroon na joxe waru yoon nekk ñuy dem di jëli xam mais dafa am li nga xam ne Sénégal dafa tàmm di seetaan xam la mooy sànq lu kii di wax xam la depuis médicament yi médicament yi waa ji jàpp ko jàpp ko xam nga lu dee ko mu dem xam la léegi soo xoolee ñen li ñuy gën a sonal ki nga xam ne dafa dugg si kër gi doon sàcc ñu jàpp kooku la ñuy gën a sonal que ñi nga xam ne ngeen fi affaire yu grave yenn délai yi boo ko la war ñu def loolu métti sénégalais yi xam ni kii kat ba mu amee lii lii moo ko ci dal xam la nga xamante ne population bi nga xamante ne ñenn ñi dinañu ragal def xam la mais mais boo xoolee mais boo xoolee mais boo xoolee mais boo xoolee mais boo xoolee mais boo xoolee waa ji Samba moom Samba moom ñu yóbbu ko stade amitié public yëpp toog ñu tiire ko kooku man moom je suis laay wax non non. nañu eh, eh, la nekk. 2020 la ñu nekk. def leen ndànk mooy def eh, la nekk mooy li ngay wax léegi léegi rek xam nga yow xam nga jàll boobu noonu li mu def. médicament loolu médicament loolu nga après loolu ñenn ñoo koy ku feebarul du ko consommer yow boo feebaree mooy amatoo kattan amatoo dara ñu jox la yoo xamante ne moom moo lay yeggali médecin foo médecin yow boo feebaree fa ngay jubal pour mu dem faji la comprendre nga dem fekk na mooy loolu comprendre li mu la bëgg wax takk der om de tenue boo jàqee foofu nga war a dem xam nga li ma la mais nga dem fekk foofu moom mooy loolu mais si ban dëkk lañ nekk léegi rek ñun adduna bi benn problème loolu laa doon wax ñu may reetaan ma ne sa adduna bi dañu am problème problème bu ñu am xam nga mooy lan fa la ñuy testé vaccin yi ñooñu lañ ko war a testé merci vaccin <laughs> ah loolu moo si mais dëgg mais dëgg la de vaccin bi dinañ ko testé doo doo mais mais mais naa affaire nag de mais naa affaire de mais tubaab bi ñoo yëpp de barke yàlla tubaab bi ñoo yëpp ah. billaahi dañ non yowaate mënta weesu sax génn télé taxaw naan non taxaw naan taxaw naan dañ koy comme gars yi taxaw ne essayé woon nañ ko essayé woon naan essayé woon nañ ko Afrique sida bi noonu lañ koy essayé waat mais loolu maanaam maanaam yab monde bi waxuma Afrique de mais yab monde bi mënta weesu loolu ah, en fait en fait non du question voyage en fait loolu chef d'état yi ñoo jël seen responsabilité xam li problème xam li problème nga nga nga yooyu wóor na yàlla c'est que maanaam saaga dafa dagga nunu quoi xam nga moo tax étau peut être ñu daggal wala ñu def affaire yu ñaaw mais ñooñu wax ma la wax ma mais si yoon dañ leen waroon pendre parce que li ñu wax noonu maanaam c'est maanaam lu gën a grave si àdduna maanaam xam nga xam nga dëmm buy jëf maanaam dañoo toll si jëf parce que dama jàmm ne sax bañ koy wax tey ñu xam xool moo tax démb moo tax démb il paraît que démb maa ngi di ñaan ay mi ngi baalu exécutif mais jéem ma xool sa lu mu baalu wala baalu parce que lu mu def moo gën a maanaam dafa garaaw quoi parce que def na ko man def naa ko lu ma dafa dafa leer def naa ko te dinaa ko defaat en fait loolu la ñu wax quoi def naa ko te dinaa ko defaat parce que comme on l'a fait comme ni nga defoon si daal noonu ñu koy defee. c'est planifié tout est planifié Moussa loolu de man dama lay wax benn lu ndaw ne fii ak euh, dans dans mois wala dans un dans un an di nga ko dégg ñuy wax. am na benn fondation bu tudd ID 2020 loolu ci vaccin yi la obligé adduna bi yëpp ñuy vacciner pour loolu noonu te loolu dafa am lu ñu ci jublu maa la koy wax tey dina dina di di ko a dëggaat feneen nga ñëw naan ma yu ID 2020 dégg naa ko waaw foofu laa leen waxee. c'est que xam wax. man par exemple gis que jour boobu maa ngi lire benn journal comprendre nga ma dégg ñu ne dafa dafa benn femme bu ñu jàpp Dalifort mu yor benn vaccin comprendre lu nee day vacciner xale yi contre Covid 19 bi affaire yooyu noonu comme man genre yooyu noonu comme situation bi fi nga xamante ne moom la toll gis nga genre yooyu bu ñu leen jàppee comme ay docteur Samba dañ leen di punir sévèrement gars yëpp xam na ni gis nga ñii nii ba ñu defee lii lii moo leen ci fekk comme li ngay wax gis nga wàllum docteur monsieur Diallo boobu noonu Amadou Wuri Diallo boobu noonu kooku gis nga bañ ko jàppee gis nga libération boobu noonu day may fit ñeneen ñi nga xamante day encouragé ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci procédure dañoo nekkoon ci yoon boobu noonu mais gis nga si si si le nga devant ñëpp xam ne ni kii moom ba mu defee lii lii moo ko ci fekk donc ay ñoom docteur Samba yi dans ñoom dina leen sax mën a reculer loo wala genre yooyu noonu mais yooyu dana di gën a encouragé xam xam nga tey euh, soo gisee gars yi am am audace ñëw naan dañuy dañuy test ay vaccin ici en Afrique c'est que chaque dañ ko yàgg di def Ah, lii du guléet voilà voilà lii du guléet dañ ko fi yàgg di def mi depuis la temps colonisation bi gars yi ngi koy def ah depuis bañ amee fi peste bi gars yi dañuy ñëw fekk suñu maam yi fii nii dañ leen di vacciner contre peste ak nangam sangam ak dóor leen vaccin yi gars yi ni dee fii <laughs> mooy loolu mais tey jii nii dafa ñëwaat dafa lii sax dafa neex ndaxte dafa am africains yi ils sont dafa am benn prise de conscience bu bu nekk ci africains yi fu mu toll nii gars yi dañuy ils regardent l'Europe xam nañ ne Europe tey jii nii avec Covid bii nii ñu ci bari dañ cee daanu ñan ñoo ñoo ci gagné moom mooy les africains tey jii nii ñoom da xam nañ ne tey pression soo xoolee ñu ci dee ci en Afrique rek ak bu yu dee en Europe wala ñu dee aux États-Unis da ngay xool différence bi ko da ngay xam ne ne différence bi c'est largement en faveur des des africains en plus tey ñu ñu jël ay médecins yoo xamante ne bon man du ma du ma du ma critiquer man waaj dama ne sax man waa ji dama ne sa sa waay jàmbaar la ndaxte yow yow nga dribbler ñëpp ba pare dem di photo ak ministre ministre de la santé ak leneen ak leneen ak leneen ak yeneen ay kàngami ponkal li ngay fini ngay kii ak ñoom ah nga nga yéeg di yéeg di yéeg di graver les les échelons en tant que un jeune ah voilà pour monter son coup ba pare ah, amoo dara looy def man man gynécologue bi sax man man ministre bi mooy loolu quoi man gynécologue bi sax benn instant man moomam daana na ma quoi. laay jëlal par jabari jàmbur jabari jàmbur yow nga ne gynécologue nga comprendre nga ñëw di atouché mais loolu c'est grave quoi. sa gaa laa moom s'il te man gaañan boobu loolu bi ah. parce que man xam nga mu tiita ki ne woon ki ne on l'avait fait pour le le VIH on va le refaire parce que xam nga la moo tax mu tiit on fait pour le VIH bu fekkee ne dañuy kat mooy jël décision dañuy vacciner l'Afrique mais c'est l'OMS mais l'organisation mondiale de la santé du gaxeen boobu noonu génn télé bi di wax est-ce que yaa may dégg c'est l'OMS man léegi OMS moomu noonu ne dañuy su fekkente gaayam li mu wax noonu am na on l'a fait comme VIH bi ni ñu ko defee dañ ko defal waral kii mais si biir OMS si clause yi ñuy signe waaye mais am na droit bi nga xamante ni day imposer vaccination mondiale kenn mënul def déet ku ne déet dañuy dal sa kaw guerre ak yow non déedéet man li ma lay wax loolu dafa nekk ci charte OMS su fekkente ni gayen bi lu mu wax dëgg la on l'a fait pour le sida comme le sida pour ñëw les africains su fekkente ni covid 19 bi noonu lay demee comme ñun nous sommes morts parce que ñun déjà que nin suñu frontière mënuñu ko tëj hmm? OMS OMS comme par exemple mu mu mu jël décision comprendre nga moom man si sama yaakaar dama dama jàpp ni OMS xam nga lan la mën comprendre nga ñoom comme ni ñuy def ñu trouvé benn ñu ne ñu ne gis nañ benn vaccin ci fii nii isient déggum la ndax war nañ ko mën a wala war nañ ko mën a commencé application vaccin bi wala déedéet OMS moom moo war moom moo yor moom moo moo dernier mot bi moom mooy wax ne ni la moom mooy joxe la validation du vaccin comprendre léegi mais le fait ni mu ne non vaccin bi dañ koy jël Afrique lañ koy commencé non OMS ah, amul pouvoir mais mooy OMS d'abord lan mooy la santé moom moo yor ko xam nga soo gisee tey non damay laajte damay laajte pour xam damay laajte soo gisee boo gisee ma bëgg laa leeral benn benn affaire mooy maanaam test boobu noonu ñuy def noonu ça de des milliards yéen yéen kii yi ko am fii nii maanaam suñu demee maanaam dañuy tester sa population conso ko loolu te verse des milliards et des pour yow nga mun cee génn tey jii nag benn instant dafa dafa dafa dem ba toll ni benn système boo xamante ne ni ñun ñiw ñu ñii war nañ cee mun a génn quoi war nañ mën a génn ci carcan yii nii te tey ministre bi war na ne war na war na kii bi war na ne tey jii moom ñoom état du Sénégal moom xalaatul nag naan day ak bel accord accord amul benn accord boo xamante ne bëgg na koo signé ak mais nag ministre bi loolu la wax ministre bi loolu la wax te te ñun ñun peuple bi mun mun nañ mun nañ loolu ne ñun benn instant ñu mënuñ accepter benn benn test boo xamante ne jóge na bitim réew te ñoom ñoom ñoo ko gën a soxla ko ñun car ñoom ñooy gën a dee Khalilou Fadiga loolu la wax sax moom moom ci boppam moom moom moo moom moo ne moom d'accord ci lii sax lii sax c'est une injustice boo xamante ne ne ñoom ñoo ñoom ñoo ko teg suñu der quoi te lii ni ñun ñëpp ñun ñoo ci war a bañ mooy lu may waxaat rek mooy ñëwaat xam la ak covid bi dëkk bu nekk bi nga xam yaay kan lan nga mën ak lan nga war a mën. xam lan moom si neex xam nga lan moom si neex. xam nga parce que xam nga lu tax parce xam nga lu tax. Moussa gis nga ni ah dafa am affaire yu bëri yu mu génne chaque jour mu génne lu bees. chaque jour mu génnee lu bees xam nga xam nga soo xoolee ñun yu bëri ñun xamuñu ko woon si affaire de vaccin yi ñu ay vaccin dañuy jam la ñu néew ñu jam xam la mais léegi fi mu toll ku nekk balaa nga vacciné wu di nga xool bu baax li ñu lay vaccin lu mu doon ak kii mu doon ku yàgg nañ ko xam la ay vaccin yooyu ah? vaccin yooyu sénégalais yàgg nañ ko kaas mais maanaam affaire man dafa am ñaari angle yoo xamante ne man daf ma ci intéressé mhm. avant avant problème vaccin bi si boppam dama seetaan benn euh, interview bu ñu defaloon DJ Raoul bi doon wax euh, corona ki ñu maa ngi doon seen benn kiyam quoi moom mu ne dafa am benn fondation boo xamante ne parfois day jékki-jékki woo ay gars xam nga ñoo xamante ne def appel d'offre quoi que bëgg ñëw jàngi si affaire yooyu kërëb kërëb jàppal baay mais constat bi mu def mooy lan xam nga depuis ba mu defee fondation bi di jàngal nit yi xam nga def constat bi mu def mooy africain yi ak arabe yi ñooy nekk étudiants yi gën a xarañ chaque instant bul lu yi def ñoom ñooy nekk étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xarañ bañ na ko ba ci biir kiwam bi sax moom suy recruter si ñoom lay recruter par rapport ak nasaraan si ma ne léegi nasaraan si léegi ñoom maanaam lam ñu raye woon ci wàllu gëstu ak ci wàllu xam-xam ak ci wàllu xalaat sax léegi xam nga ma la léegi ñun ñu ngi leen fay commencé raw suñu dirigeant yii nii nii nii ngay gis nii ah fa ñu jàngee foofu la seen dirigeant yi jàngee ëpp ñu leen xam-xam comprendre mu la léegi dafa am beneen affaire boo te dafa am importance mooy peuple bu nekk mu mu maanaam mu xam nga sant wóolu ko mu jiitam ki ko jiite ba pare ba pare mu wóolu santem comprendre mu la mais léegi genre affaire yi bu commencé am bu demee ba nga xamante ne population bi wóolootuñu xam nga personnel de sante bi même bu fekkente ne gars yi sénégalais yi boppam institut Pasteur bu Dakar bii bu demee ba trouver vaccin bu baax comprendre war ko vacciner nit yi day am problème parce que ñun suñu xel yàqu na ci vaccin ba pare comprendre mu la parce que ñun moom moo dul amati moo tax genre affaire comprendre la mais xam léegi nag léegi nag man lan moo ma si métti man leen moo ma si métti ay footballeur ñoo génn wax xam nga ak ay ñeneen mais suñu dirigeant yi si boppam ñoom ñoo waroon génn wax si loolu noonu. waaw mais su fekkee si lu. xam nga dèjà suñu dirigeant yi wax nañu ba pare ndax de la santé moom ministre de la santé moom wax na ba pare moom moom wax na ba pare kon nañ wax moo tax moo tax. mais comme affaire bi nu mu ñoom ay affaire bi nii la rek boomerang la ba na la ko nga naan ko. waaw mais am problème euh, leen mooy am na ñi am dina sax gëmuñu ni loolu am na xam nga parce que am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni lii ay waxu falaa falaa la xam nga ça n'existe pas xam nga bëri na quoi bëri na ñoo xam ne dañoo jàpp xam la xam nga xam lii moytu leen vaccin yi xam nga xam nga dëkk tamit soo nekkee dirigeant am na wax yoo xam ne doo si doo si teel a wax da bàyyi ba ba am temps xam la ñu invité ci ay émission wala genre nga mën cee wax. xam la xam la loolu moo tax. sànq bëggoon naa la waxaat benn genre analyse si si si wàllum Macky discours am bu mu mujjee def si 4 avril mm. parce que comme man ah man man man man je suis naturellement comme ça yenn yenn kii di wax man à chaque fois dama koy jàppee intox comme sànq bu ma ñëwee ngeen di wax waxu vaccin bi loolu laa leen njëkk a laajte man nag lii nekkul ay intoxication parce que gars yi des fois dafay bëri instant période yu ñu toll nii comprendre nga gars yi dañuy bëri ay affaire de jaxase entre noir ak blanc xam nga genre yooyu noonu moo tax lu ñu wax rek dama koy jàppee ethnique mais en chef d' état xaaral rek en tant chef d' dafa am noo xamante ne lu ne lu ne preuve nga wax lu ne preuve sa ñi nga xamante ne moom mooy ministre yeeg affaire yooyu ñoom lu ne mun nañu wax mais yow en tant chef d' danga war a xool loo xamante ne lu officiel wala wala lu ñu la proposé nga soog si am loo loo si loo si wax quoi moo tax raison pour laquelle bu dee président de la république moom waxul moom essient déggum la loolu kenn du ko blâmer si wax na wala wax parce que ministre si boppam moom wax na ba pare mais mais am na mais am na yenn am na yenn yoo xamante nag am na yenn yoo xamante ne cadre la maanaam day laaj ñëpp ba tax nag lépp président soo soo gisee nga naan da nga ciy jël da nga ciy jël parole wala da nga ciy da nga ko da nga ko xool ba pare doo ko xoolaat ba pare doo ko doo ko wax ndaxte wàllum diplomatie moom leneen la te et puis comme que état d'urgence lañ nekk te lépp loo xamante ne état d'urgence may na ko président pour mu koy doxal da ko war a doxal maanaam force covid 19 covid 19 coronavirus bi moom moo ko intéressé na ci wax lép loo xamante ne mun am am na solution pour mun cee mun cee génnee sénégalais yi ci ci feebar bii nii moom na ko def mais kantaa nag dugg ci leneen nag vaccin boo xamante ne ne ñoom wax nañ ba pare le ministre de la santé wax na ba pare kon nag fu mu toll nii jaratu sax ñu ciy naan dañ ciy kii waxuma Sénégal quoi di quartier général mais dirigeant africain yi laay wax comprendre la am nañ ay ministre am nañ ay porte parole du gouvernement am nañ yeneen ak am nañ ay ay kii président assemblée nationale am nañ loolu laay wax quoi euh, balaa ma ko fàtte sànq xam nga yaa ngi ko doon expliqué sànq si intox bi amoon euh, Dalifort euh, paraît-il ji deful faux usage de faux comprendre la waa ji agent la boo xamante ne agent promotion yii la dugg si biir kër gi di jaay promotion man seetaan naa affaire bi en direct ñu dem ba kër ga laajte leen mais waa ji waxul ne day kii gars yi ñoo ko interprété noonu ñoo fekk fa bëggoon ko escanté moo ko naree expliqué yëpp day jël émission mais pour daal pour mu leer waa ji demul foofu vacciné wul kenn li gaa yi wax ne waa ji da dem di vacciné c'est pas c'est pas vrai comprendre la problème bi affaire bi Afrique yëpp la laal laa wax comprendre la bëgg wax xam nga tey lu ñuy wax bukki bu yebee gaynde si doxin bi la comprendre mu la mais xam la moo tax xam la moo tax mu war a dëñ ah 2020 lañ nekk majeure partie président yi africain yëpp ay booyu ndaw lañ comprendre la ñoom fa ñu jàngee xam nga feenee maanaam ñun bu njëkk ba bu njëkk ba jamono jeene jamono ay paay comprendre paay yooyu ay guerrier lañu woon comprendre la jamono yu njëkk yi quoi président africain yi ay guerrier nga doon doon ay kërëb kërëb jàppal ba affaire yooyu ay borom yax bu rëy ngay nekk wala affaire yooyu manaam maanaam mais dañ toll si jamono boo xamante ne village planétaire moo fi am xam la li Donald Trump di xalaat Macky Sall moom lay xalaat moom la keneen ak keneen di xalaat xam nga fu ñu toll xam affaire bi ku nekk ak li sa askan jaral comprendre na ñoom xam ñun ñëpp ñun xam ñun ñëpp xam nañ ne tubaab ñun xam nañ yeneen dëkk yi lan lañ ñu ragalee ñun ci ci discours ci discours Macky Sall bi rek déjà mu ngi koy wax sax mu ne moom mu ngi doog a xam ne ne euh, nu mu tuddati santé bi secteur sanitaire bi nii am na ay sooxe yu bari yu ci nekk te euh, moom loolu moo tax moom mu mu bugg cee dugal 64 et quelques milliards yoo xamante ne ne moom la moom la ko jagleel. loolu day loolu dafa war loolu dafa war loolu su ko defoon bien avant lii yëpp du am maanaam ma maanaam suñu suñu secteur sanitaire bi dina am dina am dina amoon doole dina gars yi dinañ mën a gën a liggéey gars yi dinañ am motivation ak leneen ak leneen mais tey jii nii. force Covid 19 bii nii Covid 19 bii nii moom dèjà rek wane na ne wane na ne ñun suñu sanitaire bi dafa sooxe donc ni ñuy ñaan rek moom mooy comme que dugg nañ ci nii nii yàlla nañ ci génn a jàmm rek. incha allah incha allah man ce que je dirais mooy comme sànq bi may tàmbali li may wax rek. tu as été technicien nekk fa ingénieur nekk fa directeur jóge fa nekk ministre suuf bi tu maîtrises. jóge fa nekk ministre de l' intérieur. yaa ngi comprendre maanaam renseignements généraux yi lay dal muy santé muy lépp intérieur. yemul lépp la santé économie tout lépp di la dal yow ngay toog 2012 ba 2020 nga naan ma ay eh, xamoo mbirum santé nii nii alaaji ñun même su fekkente ni amuñu doctorat wala extraordinaire mais au moins am nañ xel kooku bu boo jëlee xale buy def sax BFM boo ko ko waxee li ma la ko tegalee nii dina non dina la dina la génneel benn synthèse ku baax qu'on se dise la vérité léegi nag leen dafa ñu ah. ñuy naan noir bi blanc bi parce que sur France 24 ñoom indi afoon eh, tegoon nañ fa benn émission lors du début du corona la que le Covid 19 peut attaquer le noir mais en fait il ne le traite pas ñoom tubaab yi waxoon nañ ko ba tubaab bi commencé du mais bon émission yi du jaar fii en Afrique parce que oh, il y a certains trucs qui passent pas chez nous tu comprends léegi <clears throat> ñun africain saa yow soo xaw ma naa ne ko wala ah, sa bopp. kañoon je ne sais yaa xam noo koy gérer quoi fii nii yow yaay gérer sa bopp su fekkente ni yow ki nga ki nga ki nga jox sa bopp wóolu woo ko nga wut keneen koo jox sa bopp wala nga gérer sa bopp nga nangu ko waaye yow waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar yi ñëpp nun moom dañ noo yaree nii maanaam waxtaan boo xam ne fekkee woo départ boo ci bëggee kii il faut nga négandiku ba xam fan la nit ñi di waxee boo bañee wax loo xamante ni lii nii xëy na dafay ëpp waaye kii dafa wax lu am solo mooy lan mooy ci am man olof laa dégg mais man ni ma déggee waxam mooy Macky daa rampi ñëw comme Macky sax man Macky bu fekkoon doomu milliardaire la bu toogee ne xaw ma nangam ak nangam waa ñu mën a nangu waaw waaye Macky ngeen baal ma ca waxin bi bu ma ko fi waree wax mais. du ma du ma waxee noonu xëy na day day ñàkk a teggin mais dafa dafa ràmpi ñëw dafa ràmpi ñëw mos na bu ne jàngee école publique comme ñi sunu gone yi jàngee école barak du école publique fa la Macky jàngee Macky ni ngeen ko waxee mos na jamonoy kii la nu mu tudd du du du kaar kaar kii yi de dem dikk bu njëkk ba nan sataraak mos na ko mos car rapide mos taxi mhm. yu wam koy wax sànq mos na location fii mhm. waaw kon mag yi xam na lépp mhm. kon dara waru koo jaaxal beneen bi ci des mooy réseaux sociaux yi man toujours ñu envoyé ma mais du ma gëm gëmatuma daray réseaux sociaux parce que ba bi ñuy wax naan euh, bara kii président Amérique bi mu ngi jàngalu kaamil c'est foo du dëgg kooku gëmul kaamil bay jàngalu kaamil loo gëmul noo koy jàngaloowee ah mais faxe nan ba monte ko ba mel ni moom Donald Trump boobu mooy jàngalu kaamil bi ah, waaw yooyu yëpp c'est faux affaire bi Baba Ji wax fii nii Dalifort c'est pas c'est moom tamit du dëgg waaw ma am na kenn ku ma envoyé benn kii tey xam nga nu mu def ca diggi corona ja ca Amérique la taxaw mu ni euh, gis ngeen ko étage yii oto yii dañoo dem ba gaare ay camion dafa dafa hospitalisé malaat yi léegi ñoom ñu ni ñoom dañuy jël garab bi ñëw di ko essayé ji Afrique te ñoom ñu am malaat yu toll nii moom mu nga taxaw ci diggi malaat ya ma ne waaja ah moom moom mu fa taxaw ci digg bi bu fa noppee mbaa dina ko jig moom ah ca fa mu taxaw parce que mu nga ca diggi diggi malade ya ah ma ne ko man de wax dëgg yàlla bëgg a wax ak bëgg a joxe information rek jëraluma risque boobu muy def waaw moo tax côté réseaux sociaux dama ciy def attention waaw seen émission bi nag moom am na solo bu baax a baax a baax waaw parce que yi ma fi dégg yëpp euh, defe ngeen ni yu waxul xam-xam mais xam-xam la wax euh, maanaam nit moom kenn ku ci ne ah, dafa am nit ñoo am ne noonu la noo waxtaanee maanaam ba ca waxtaan jotaay buñ ca nekk buñ fa nekkee ah noonu la ñuy def waaw loolu noonu kenn du xeebal kenn xam-xamam waaw waaye sunu réew beneen bi ci des mooy docteur Samba boobu mënuñu koo bal état mënuñu leen koo bal ndax dañoo jàng nanu ministre de la santé du ay caaxaan ministre de la santé jëluñu benn personne bi seul ne ko yaay sunu ministre de la santé donc ah nit ñaa ngo mel ni maanaam euh, sàmmkat bu ñu jox yat ne ko toppal jur gaango dafa ay am ñu ko accompagne docteur sàmba boobu yàgg na fi fi ñu wax ne fala jaar fii ah ñan la ko daan àndal te man gis na photo yi ma gis ak ministre de la santé du yëpp a montage la xanaa mën na nekk montage waaye est-ce que montage la ah, kon ñoom ñooñu mënuñu leen a baal docteur sàmba boobu waaw man sama dernier mot bu may wax xam la xam nga damay damay waxaat nii xam nga damay waxaat xam nga parce que bële paase bële paase waxoon nañu xam nga waxoon nañ ni xam la gars yi war nañoo continuer di distribuer xam la xam nga gel yi xam nga xam nga nu mu tudd omo yi xam nga xam nga xam pour gars yi xam nga pour gars yi mën ko jëfandikoo xam la te tamit am na ñu commencé ay jéego. xam nga parce que démb gis naa réseaux sociaux bi xam nga moo jóob xam nga il paraît que mi ngi commencé distribuer ay taal bi c'est bien a jublu ko mu commencé kon xam nga sidi bi tamit xam moom it war na ko mën def xam nga may wax tamit nu mu Adama Faye xam nga nañ ko élection yi xam ba mu daan jot da daan def yooyu xam la mais boobu ba léegi tamit gisuñu mu def si dara xam la parce que tamit képp kuy autorité xam la loolu sa warugar la xam san ba ba dini ka maire nga wala lii peut-être maire bi moo ko war a gën a xam la mais ay Sidibé ay Adama Faye keneen keneen war nga ko def xam la képp ki nga xamante ne am nga yenn mooy yoo xam ne war nga ci mën dimbali war nga ci mën dimbali xam nga sa population xam la war nga ko mën def parce tamit xam nga Sénégal fa lañ toll quoi kaay na kaar macha allah mi ngi wàññeeku te yàlla nañu yàlla jàppale xam la ba bu mu amati bu ñu xëyatee duñ diggante ñu xëy suba teel ne zéro cas xëyaat ne zéro xam nga wax dëgg fa ne yàlla xam nga loolu la ñuy ñaan xam nga te ñu ngi ñaan yàlla xam nga yàlla la am pour leen de naa leen ko xamal parce que maa ngi dégg sànq ngeen di naan ngay naan buñ bu ñu jiitalee kenn bu deful naka su dul noonu yow nga lijjanti sa bopp leen léegi fu mu toll nii affaire bi dafa dafa ëpp loxo yi état boobu parce que yi wax nii ba tey jii maa ngi di leen ko waxaat loolu lenn loo xamante ne dañ ko biñ koy programmer boobu ñun judooguñu te OMS fu mu toll nii signé na droit boobu noonu xaw ma ndax xam ngeen ko wala wala xamu leen signé na droit boobu OMS lu mu wax ni dañ koy def dañ koy def par force léegi nag waa xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw dama lay dama lay wax rek xam nga wax naa la ko nee naa la xoolal ID 2020 dañ koy activer par force léegi ça dépend xaaral ma ñëw dama may ma wax damay laajte rek ça dama lay wax rek pour nga pour nga jàpp ko dégg nga ID 2020 fondation boobu noonu vaccin yi dañ koy activer par A par A B yaa ngi dul wax léegi ça dépend nag si chef yoo xamante ne ñoo xamante ne par force dañ koy jël wala duñ ko jël mais dañ koy activer loolu moom dinañ rëcc waaye duñu mucc man maa leen wax loolu man loolu laa bëgg a tëj nan léegi nag ku nekk jël sa sa sa matukaay. xanaa comme que moom euh, ab ab njóobeen la moom dégg nga maam yenn saa yi mu yokk ci dara lu lu jar ak lekk ak ceeb ko waa mais garaaw mun nañ koo pardonné lu may wax rek moom mooy comme que euh, euh, Macky Sall ci discours am bi def na wax na ne 1000 milliards yi wax na nu mu koy defee suñ soo calculer dépense yi mu dugal ci 1000 milliards yi. soo ko calculé ça ça tourne autour de 944 milliards am na ay 58 et quelques milliards yoo xamante ne des na loolu luy des nag dañ koy ñaan ngir yàlla rek su ko mënoon jël mu dugalaat ko ci mbirum santé bi su boobaa santé bi dina gën a mën a am doole ndaxte après Covid 19 bii moom la moom ngay sóoraale état dafa war a sóoraale après crise te crise bi après crise bi ci dina gën a dina dina gën a mais dañuy ñaan yàlla rek su jëlee dooleem xaalis boobu des mu jël ko doo ko ci santé bi ci boobaa santé bi dina mën a évoluer te ñun ku ci nekk ak ñun ku ci nekk ak am am nga sa feebar mun nga dem su boobaa ñu lañ la faj faj faj bu yomb di ñaan yàlla rek euh, comme que suñu nguur gi suñu autorités yi nekk fii nii euh, Grand Yoff ñoom ñu ngi def ay ay ay actes donc dañ leen gën a dañ leen gën a féliciter on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit mais képp koo xamante ne ne li nga war a def defoo ko doon dinañ taxaw jàkkaarloo ak yow wax la ne léeg-léeg lii soo ko defoon dinañu may dinañu may doole dina may peuple bi doole dina may ñi fi dund na dina tax seen dund wala seen am-am wala seen koom-koom gën a gën a yokk loolu rek lañ leen di ñaan asalaamaaleykum rahmatullah may wax rek man sama mot de fin xam nga li may wax benn benn dañuy delloowaat rek parce que instant yi nii comme niñ koy waxee situation bi fu mu toll ci dëkk bi feebar mu ngi fi ba léegi di gën a takkar naa chaque jour cas yi duñu doo mosoo yeewu ñu ne la cas amoo tey amoo ay cas yu bees chaque jour dañ naan la cas yokku na chaque jour kaa yokku na donc képp koo xamante ne ni yow en tant que sénégalais en tant que citoyen nee naa leen chaque jour xeex bi yow yaa koy tàmbale yow personnellement bu ba pare parce que béy si sa weewu tànk li nga xamante ne moom mooy les mesures barrières moom mooy li nga war a respecter chaque jour balaa ngaa génn sa kër sa loxo raxas ko ba mu set ak saabu comme ni ko gars yi waxee comprendre nga fépp foo xamante ne danga fay dem booy dem bul joxe loxo bul nuyoo comprendre nga am amul accolade bokk kaas café kaasu kaasu kaasu ataaya yeeg yooyu yëpp nañ ko nañ ko wàññi comprendre parce que loolu moom mooy moom moo nekk li nga xamante ne moom mooy moom mooy propager virus bi donc instant yi situation yu ñu toll nii période yi ñu toll moment bi ñu toll nii instant déglu la loolu yëpp moo war a ndoon li nga xamante ne moom la ñu war a njëkk a loolu képp koo xamante ne yaa ngi koy def parce que comme juróom laa déglu Bouba Ndour muy wax ne man sama yaay sax damaa jàpp ne dafa am feebar bi nit ki boo jàppee ku nekk dafa am feebar bi comme da ngay daw ku nekk da ngay moytu ku nekk te moytu ku nekk boobu noonu moom moo lay musal si li nga xamante ne moom mooy feebar bi deuxièmement deuxièmement li li nga xamante ne bëggoon naa ko waxaat tamit moom mooy comme jour boobu noonu précédemment sunu sunu sunu sunu émission xamante ne mujj nañ fi wax dañ doon dañ doon wax di xaw a dal sax si mairie bi parce que noonu la gis nga fii nii loo fi def gars yi koy médiatiser gars yi koy gis man démb dama jékki rek di seetaan gis maire bi nga xamante ne moom def na ko donc deful dara comprendre nga mais jéego yi nga xamante ne ni moom nekk na ko du ko entreprendre fu mu toll nii essant yi déggul la comme Moussa li nga wax di ñaan mu bañ a dagg parce que essant yi nii combat bi c'est collectif sama koñ rek démb noonu noonu lañ def yi léegi kenn xaaratul kenn koñ yi léegi dañuy génn dañuy ket di cotiser pour jënd ay antiseptique wala ay omo xam nga di ko joxe si biir kër yi pour gars yi di yokk li nga xamante ne moom mooy wàllum set képp koo xamante ne ni nga daal en grosso modo xeex bi yow yaa koy def xeexu personnel ngay daw ku nekk di mesure bar mesure barrière yi daal nga nekk di ko appliquer loolu bu ñu ko defee ñun ñëpp li nga xamante ne moom mooy feebar bi dina jóge daal si si suñu réew loolu laa amoon lu ma siy doole moom. président notre président quoi bi bëggee ñëpp tëdd vingt ñëpp dañ tëdd vingt heures bu fekkente ni da bëgg dëkk bi am autosuffisance alimentaire am nga moyens yi pour su fekkente ni da nga bëgg Sénégal avancé économiquement industriellement. politiquement même socialement loolu yëpp am nga moyens yi quoi tu as toutes les clés avec toi ñu dem yow la ñu kale yow la maintenant nag l'histoire et la su fekkente ni da nga bëgg tur buy law yaa koy liggéeyal sa bopp tu as toutes les cartes en ta main et je sais que peut-être tu bien entouré ou peut-être pas mais aussi rampe nga comme ni ko Cheikh bi waxee tout à l'heure nga li nga xamante ni yow yaa ko dundal sa bopp kenn nettaliwu la ko ci a ci a galéré xam nga gars lu ñuy daj ñi ñi nekk ci route bi xam nga lu ñuy daj message bi yow laa ko joxoon su fekkee ni bëgg nga ñu dem xam nga fu ñuy jaar jërëjëf wa salaam. xam nga ñu ngi sant ñëpp ñëpp euh, ci teewlu ñu xamante ne moom lañ doon teewlu seen émission bi nga xamante euh, mooy si laa bokk euh, ñun ñëpp ñoo ko bokk comme li ko gars di wax rek tamit kam képp koo xamante ne am nga xalaat boo xamante ne war nga ko ñu mën a yokk tamit xam nga. ñu ngi xaar quoi seen xalaat xam nga ñu ngi remercier tamit xam nga takk der yi wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi liggéey liggéey bu am importance donte xam nga li di wax la quoi xam nga chaque fois dina am ay affaires yoo xamante ne maanaam dalay bett quoi te loolu lu la bett rek mën na mais ñu ngi leen di remercier bu baax baax baax gis nañ seen taxawaay xam nga par rapport ak situation bi xam nga euh, xam ñoom tamit xam nañ ne ñoom ay sénégalais la comme ñun kii quoi sapeur pompier yi man man ñoom dama leen yàgg fa man avant lii dem leen yàgg fa man ñooñu xam nga maa ngi leen di wax respect xam nga di res di wax respect euh, euh, euh, gendarmerie police xam nga ak armée nationale bi yëpp xam nga ak service d'hygiène ñu ñëpp ñu ngi leen di wax xam nga respect di wax gars yi tamit xam nga affaire bi bu mu demee nii rek bu ñu dégg ne affaire bi mu ngi wàññeeku rek ñu bàyyi suñu loxo comprendre nga nañu farluwaat ci di d'hygiène yi xam nga ñu raxasuwaat xam nga nañu respecté raxasu bi xam nga respecté tisoli bi xam nga respecté lépp loo xamante ne xam nga wax nañ ñu ko pour ñu respecté ko xam nga di leen wax asalaamaaleykum ah, wa rahmatullah xam nga di leen nuyu di leen sant di leen wax ba beneen incha allah